salaamaaleykum. ok euh, donc ñu ngi fi ah comme Rebeuss li nga xam ne moo détenu yi génn nañ fi tey nga def nekkoon koo xam ne yaa ngi nekkoon ci biir ana ban temps nga fi defoon ak ban moment nga fi duggoon tamit. Hmm, man maa ngi tudd maa ngi siyaare ñëpp di siyaare sénégalais di siyaare patriotes yi bu baax a baax a baax man maa ngi tudd Mbaye Diaw dëkk Pikine tali bu mag euh, ñoo ngi ma jàppoon manifestation Mame Mbaye Niang mars maa ngi fi woon nekk Sambour 9. def naa fi onze mois presque at koorug daaw lan ma jàppoon ba koorug daaw koorug ren di bëgg a dellu si waaw mhm. ah, ñu bàyyi ma vendredi bi jàll nag mhm. te waxuma leen loo xam ne moom lan ma bàyyi moom laa bàyyi ma mhm. ba yàgg ñu ne ma Mbaye Diaw jëlal say bagage nga ñëw ci am chambre neuf la nga nekkoon waaw ah, def naa fa onze mois ah, biñ lay jàpp ci ban anam ci manifestant yi ma jàpp ma mars asalem ku nekk xam na ko ku ma gis da nga ma xàmmee man man Mbaye Diaw ku gis da nga xam ne man maay wax. marché Assane lan ma fekk police Asalem ñoo ma jàpp si. fekk ma may ñëw ñu ne ma kaay yaa doon dajal xale yi fii si marché bi ñuy taal nangam nangam affaire yooyu noonu. jël ma yóbbu. waaw su ma dañu accéder ba noo ñëw ba sama biir place. benn booy lan jox benn mbuus pour ñu xam man na Mbaye Diaw benn booy lan jox benn mbuus mu ñëw booy bi ne ma yaay Mbaye Diaw ma ne ko waaw ñu yëkkati mbuus gi jox ma fekk na li tax xëy na ñu jàpp ma mooy fekk nan fa ay photo yu Ousmane Sonko yu bëri ñu xam ne man patriote la bëgg naa Ousmane Sonko manifestation yi jàll nañu wut ñu ni jàpp ñu sama place fekk ma may ñaw ñu jël ma yóbbu moo ne si digg place foofu lan ma monootee jël jël ma yóbbu mhm. waaw ba léegi waxuñu ma lan laa def ba nit may bàyyi nii te def naa fa onze mois mhm. yàq nañ sama liggéey ma tëj sama place yàq nañ sama njaboot dund njaboot lu metti mhm. waaw ba heure bu lan neex ñu bàyyi ma daal te waxuñu ma yan condition lan ma bàyyee te defuma dara manifesté wu ma defuma chaque fois bu ñu la leen di maltraité est-ce que yow bokk na si nga ma parce que jàppee wuñ ma si ay manifestation daal moo tax dóoru ma dan ma fekk sama place jël ma yóbbu ma daal. waaw mhm. ah, ba léegi defuñu ma dara lenn rek laa dund dund lu métti ma wax dëgg yàlla loo xam ne métti na lool sax. mooy kaso Rebeuss bi. nan nga fa dundee. métti wi daal foo ko natt weesu na ko. kaso Sambour Neuf laa nekkoon da Sambour Neuf yéen kenn ku ne mu ngi koy dégg ni Sambour Neuf Sambour Neuf fa laa def onze mois. mosuma miituwu mosuma naan liberté provisoire parce que ñoom ñoo ma jàpp heure buñ ma bëggee bàyyi danañ ma bàyyi ñaan mhm. liberté provisoire taxul ñu ñu may la ko chambre mhm. neuf mett na mett goo xam ni chambre boo xam ne deux cent vingt et euh, personne ñoo nekk ci biir chambre bi chambre boo xam ni ay jamono amul benn ndox da ngay toog cinq sour dix jours yoo xam ni doo gis ndox ndox du xelli waaw pour nga sangu problème da nga toog ñetti fan yoo xam ne doo sangu doo tëdd tëdd bu baax man bi may doog a dugg si sàmbur bi toog naa deux mois yoo xam ne nelawuma waxuma paquetage bi ñëwaguma ci de deux mois yi dama koy toog du xoole nii du ma nelaw boo xëyee suba tamit doon nelaw fi nga toog ngay toog nelaw wala fi nga taxaw ngay taxaw di nelaw waaw def naa fa onze mois yoo xam te dañ lay paqueté chaque jour sàmbur bi day dañuy dañuy dañuy dañuy kii dañuy dañuy jël ay nit dañuy rentré boo xam ne tamit deux cent onze personnes nekk fi si benn sàmbur boo xam ne sàmbur bi benn wanag la am ñaari wanag wanag wi ni sangoo ak wanag wi ni dem bi ni jàppoo ak wana bi ni demee wanag waaw deux cent onze personnes am ñaari benn bi dong la ni am droit sangoo si bi si des kenn amul droit sangoo si xam nga loolu jaaruwul soxna si mhm. xam nga loolu doy la mhm. ci benn réew boo xam ne dañ réew démocratie wala réew boo xam ne boo fa waxee ñu jël la yóbbu la boo defee la ñu jël la yóbbu la Ousmane Sonko ngay ànd la ñu jël la fekk place bi ngay liggéey ñu jël la yóbbu la bàyyi sa njaboot ci lu méttee métti loo xam ne teguñu ko dara mhm. bu doon dan lay àtte sax ñu la defoo waaye da toog ci kaso bi ba heure bu la neex ñun la kaay nga jël say bagage nga dem ñibbi loolu moo tegul fenn. chambre neuf ok. non chambre moom dara taxul ñu dugal ma fa. dan fee dan fee dama faa rentré rek comme samay morom ñu fay rentré parce que bëri na ay patriotes. Mhm. maa nekkoon responsable euh, patriote yi fii si boor si biir quoi. Mhm. damaa jàpp ni dan ma fa war a dugal mhm. ñeneen ñi fay rentré rek. ñu rentré ma rentré fa quoi. comme ni ñeneen di rentré treize. wala quarante parce que treize ay quatorze quarante ay onze ay. ay neuf dix yooyu ñoo gën a métti ci kaso si chambre yi quoi. Mm-hmm. xam naa ni yàlla daa dogal ma dugg fa rek ma dugg fa ma dugg fa ak diggante nag ah dugg naa fa defuma mutation parce que dama ne man du ma def mutation du ma bind liberté provisoire ñoo ma jàpp heure bu ma bëggee bàyyi danañ ma bàyyi man loolu noonu laa ko dundee ba koor ñu may woo ni ma jëlee say bagage nga dem ñibbi. Mm-hmm. lan moo la si gën a marqué. moo ma si gën a marqué li ma si marqué bëri na parce que benn jëlee naa fa jaamu yàlla parce que benn li ma li may wax nii. barki alquranu karim bu dul dëgg yàlla naa fa delluwaat mhm. saa yu daan xëy suba dan daan wàccil sidna Ousmane Sonko mu sell mi benn euh, benn kaamil chaque jour bi ñu wàññee kaamil juróom benn fukki kaamil ak lu topp kon juróom benn fukki kaamil ak lu topp ñu jàng ko si benn néeg di ko wàcceel lan mooy projet bii ñu nekk mu continuer ak sidna Ousmane Sonko tolof tolof yi mu nekk yàlla na ko si yàlla génnee si jàmm mhm. ak jaamu yàlla parce que foofu mën naa ne patriote yi fu nekk la gën a baax ak lay gën nekk jaamu yàlla ñoo koy jiite Mhm. imam bi moo doon ci ku ñuy wax Alioune Sall euh, moo doon nekkoon imam bi patriote la man maa si topp patriote la kuréel gi foofu yëpp ñun ñoo doon ko jiite te ñu ko doon ko jiite yëpp ay patriote la mhm. loolu moo ma fa gën a marqué ak ñu joxoon buñ la xamee ne yow patriote rek dañ lay jox respect parce que xam na ne yow doo sàcc doo fent dignité sa fulla ak fayda moo ànd Ousmane Sonko mhm. li ma si gën a neex tamit mooy euh, nekk gi nekk si kaso bi nekk gi ma nekk si kaso bi mu wóor na ma ni li may nekkee si kaso bi du sàcc du jël alalu jàmbur du yoon lan nga nekkee si kaso bi mooy da nga doon xeexal sa réew da doon waxal sa réew ñu jàpp la dugal la si kaso bi. Mhm. man loolu moo ma si gën a neex bu doon man damay def si kaso bi te Sénégal euh, soppeeku. Mhm. wala ñu ray ma te senegal soppeeku man pare naa loolu bëgg naa ko soxla naa mhm. parce que sama réew suñu réew moo ñu ko jaral ko waaw suñu réew moo ñu ko jaral te loolu duñ ci jóg. dugal ay kaso man bi bi benn yoon bi nekku ni benn yoon lan ma jàpp de bii mooy sama ñetteelu xaw ma ñaari ah kon yow am na fu ñu la adressé ba tax ñu ñëwee la noonu. Pastef laa bokk Pastef laa bokk siis bi wax naa ko nee ko Pastef la chambre ah, waaw ñoom seen affaire la man nan ma dugal feneen bu raw chambre neuf loolu amul problème man nit dong daara laa. Mhm. dem naa si daara fukki at ak ñett. ay chambre neuf ak Macky Sall ay chambre neuf ak yooyu jaaxalu ma bu la neex dugal ma fu la neex yooyu jaaxalu ma en tout nekk sama xol bi muy gëm-gëm bi ma nekk muy bëgg Ousmane Sonko barki Seexul Xaddim bakkan bu dem ak dara lu dem taxul ma jóg ci mais deux fois yi la njëkkoon jàpp même condition la wala nu demee woon boobu tamit ba tax treize nekk même condition la rek waaye yàgguma fa woon quoi mais dii suudoon vrai mag Amadou Ba suñu liste député yi mooy bu ñu ko téyee quatre heures du matin deux heures du matin man ci laa bokkoon mhm. si manifestation na te loolu conditions yi ñu parce que sees ba la ñu fekk ñu toog ñu jàpp ñu deuxième fois benn boo xam ne dañu fekk ñu manifester ñu jàpp ñu mhm. te loolu teguwul benn loolu dafay war a dañ dafa war a dal ci Sénégal mhm. parce que ñun dunoo ami mbokk amuñ njaboot du nit ñoo xam ne ñun du ay responsable lan dañuy liggéeyloo ay nit di leen fay Mm-hmm. yor place di xëy suba di liggéey mm-hmm. di doxal ñi dox ci réew mi ba pare yor njaboot yor soxna mm-hmm. yor sa yaay yor sa papa yor sa lépp parce que man Pikine laa dëkkoon te fi doone maa ngi dëkk fi doone Dakar gii soriwuma te Pikine laa dëkkoon condition yee sama soxna doon dund foofu moo tax mu mujj ñëw tuxu si fii si ay mbokam des dend ak ay mbokam loolu Macky Sall moo ñu ko teg te kenn deful dara defuñu dara bu doon dunoo def dara sax saaga wala man ma saaga woon sax wala ma def leneen lu ma war a def bu leen neexee ñoom ñu ñëw si ma waaye defuma lenn loo ne war naa ko def tey nga daal di ñëwaat soutenir ñi nga xam ne ñoom ñooy génn wala soit da nga ñëw pour récupérer li nga xam ne mooy say bagage non non dama fay ñëwaat pour soutenir sama téléphone ba mu récupérer ko sama mhm. mhm. ngi si procureur mu téye ba tey jotaguma ci waaw mu ngi si procureur mu téye ba tey dafa am sama benn xarit bu nekk ci biir dootu ni yëpp ñoo ma a jóg sax waaye am koo xam ne damaa marqué koo xam ne sama xarit la woon ci biir ñu jàpp ci mu nekk ci biir mu tudd Mohamed Cissé dafa feebar feebar bu méttee bi muy nekk ci biir waaw bi muy nekk ci biir dafa feebar feebar bu metti ba tey jii nii dafa jeex takk takk takk moo ngi nekk cabine 6 ba léegi bàyyeegul ko moom laa ñëw xool si quoi. Mhm. waaw moom laa ñëw seet si xool ba xam ne kañ lañ koy bàyyi wala déet. Mhm. Ah, du Mouhamed Cissé doo nga fa feebar. Mhm. ay nit ñi feebar man mii di wax ak yow feebar naa fa léegi ma am na ko ma koy wan lii nii loxo la bëy la. si kaso bi la ma dalee depuis deux mois yoo xam ne du ma nelaw du ma def dara sama tànk bi lakk lépp lakk sa wi yàqu si kaso bi. maanaam kaso bi daal la fa nekk lépp ñu ko wax mënoo ko wax si micro. Mhm. metti na fu metti wu tal metti na ko. Mhm. wallaahi fu metti wu tal metti na ko mhm. waaw sunu mbokk yi sonn bee bëgg a dee. di jaabante di dem ak a ñëw chaque jour ñoo ngi jaabante dem ak a ñëw. te man mii leen man maa leen yoroon te man liggéeyatuma léegi fi li ñuy li ñu war a am di ko dundee fan lañ koy jëlee. te loolu kan moo ñu ko teg mooy Macky Sall moo ñu ko teg te defuñu dara te dafay war a jógee seen tappale ñuy def dafay war a jóg yi dafa jeex bu yaakaar na ne xoqatal wala jël ay dugal ay kaso waaye moo leen fi mooy mooy tax ñu dellu ginnaaw barke alquranu karim ya Macky Sall na def leneen lu dul ay jàpp du kaso xale yi ñame nañ kaso ba pare kaso bi dara nekkul fa xam nga lan moo fa am lekk tëdd naan loolu moo fa am loolu lañuy nekkee ak waxtaane Sidna Ousmane mu sell bi waxtaane Sénégal jëm kanam waxtaane projet bi nan lay demee loolu moo loolu moo fa am leneen amu fi ñun ci loolu la ñuy dox li ma yàqal bëri na waaye li ma defaral tamit bëri na damaa yàqal damaa defaral mhm. li ma yàqal mooy sa xëñ nañ sama place liggéeyatuma mhm. sama soxna mu ngi dund dund coono yi metti waaw parce que courant la courant koo xam ne moo daan la jox mhm. bu léegi boo boo ko gisatul nan waxante dëgg da ngay sonn sama njaboot dañuy sonn sama yaay day sonn sama ñeneen ak ñeneen dañuy sonn loolu laa fa dund loo xam ne metti na ma li ma fa dund mooy neex ma mooy li ma toog di di jàng kaamil alquran mu leer na ma kan laa koy jàngal muy Sidna Ousmane Sonko mu leer na ma kan laa koy jàngal muy Sénégal mhm. loolu laa fa dund mu gën maa neex mhm. li ma ak li ma si gën a neex a tamit bi ma génnee wax dëgg yàlla ma gis ni sénégalais yi ñu ngi gën a taxaw ngir démocratie sax si réew mi mhm. ñu ngi gën a taxaw ngir dëgg sax si réew mi fu leen nit di la fa woowee ñoo xam ne sax mosoo leen a xam mosoo leen a dégg ñu la fay woowee di la remercier naan la jàppal gën a la bàyyi ñu ngi doon la masque nangam nangam loolu moo ma ci gën a neex wax dëgg bi ma génnee si kaso ba tey manqué wu ma dara lépp loo xam ne soxla naa ko sa patriote yi ñoo ma koy jox. Mhm. ba ma génn si kaso ba tey lépp loo xam ne soxla naa ko ñoom ñoo koy defaral. Mhm. ñoom defal lépp. Mhm. waaw même bi may nekk si biir kaso tamit lu ma soxla su ma leen wooyee balaa moo am benn fan ñaari fan ñu indil ma ko. mais jour bi nga xam ne am na rapport élection yi maanaam Macky Sall ci la poussé élection yi jour boobu ne nañ ci biir yëngu na ana nan la yëngu-yëngu. waaw waaw waaw waaw waaw ñun dañ ne Macky Sall na rey garaawul Sall na tëj garaawul Macky Sall na laggal garaawul waaye na élection am na élection am ñu jëlee ko si réew mi léegi ñu dem jàpp élection yi jàpp élection yi ñun ñu toog si biir jàpp suñu jàmbur ni comme teg nañu injustice garaawul nan toog muñ ko léegi sidna Ousmane Sonko ñëw génne ñu fi mm-hmm. ñu toog ba yàgg ñu Macky Sall ñëw cinq minutes kanam kanamu yambaram googu ñëw taxaw naan ay élection yi dàq nañ ko ay affaire yooyu noonu. xam naa ne nag euh, patriote bi ñu koy def nag defee wuñ ko pour leneen pour xol bu tàng lañ ko defee parce que mënoo nekk ci biir tamit di xalaat. pour génn. ñu jékki jekki ñu la élection yi dàq na te élection yooyu nga yaakaaroon pour génn suñu mbokk tamit élection yooyu leen yaakaaroon pour mu génn ñun ñu nekk ci jàmm quoi ñu jékki-jékki dàq na élection yi. prisonniers yi mer mooy prisonniers yi nga xam policiers euh, détenu politique. mer daaj bunti waaye bi ñu daaj bunti dawuñu defuñu dara du na daaj bunti taxaw foofu jàpp seen jàmbur ñu dóor leen ay lakkar mu seen ñu taxaw affronté affaire yooyu noonu waaye kenn gaañu wu si dóor ñu si kenn defuñu si kenn dara waaw mm-hmm. ah, affaire yooyu noonu loolu dong loolu moo fa amoon quoi mm-hmm. oui loolu moo fa amoon bi ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoo ñi lay seetaan tur bi nan la waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu di leen man c'est Mohamed Daf Mohamed Daf waaw dëkk mm-hmm. Grand F GPS Grand F laa bokk d'accord Mohamed ñu bëggoon xam ah, kañ nga génn fi nga xamante ne rek mooy asamet ci jotu nii nga xam ne dañ leen jàppoon maa ngi ay 18 heures nga génn. 8 heures a waaw 19 heures yooyu. d'accord def de temps ben j'ai fait jours de prison daanaka 5 mois 11 jours. 5 mois 11 jours waaw ah, 31 août lañ ma jàppoon. 31 août waaw. lan nga defoon bañ la. ben amaana man moom daanaka du ma activiste sax mais je suis Sonkiste pur et dur bokk Pastef. bu mhm. Grand Yoff mais je m'affichais pas trop même. parce que dañuy du ma militant du ma sympathisant romb naa yooyu je suis sonkiste pur et dur. Mhm. ben ay tuuma rek ma tegal ben jàpp ma mais sant yàlla buñ duggee kaso. tuuma la. ay tuuma ay ay acte est majeur à mooy loolu daal sécurité publique yi tout ça. da nga daan dem ci manifestation yi. ben manifestation yi pacifiquement pacifique dama doon dem. Mhm. manifestation yi boo xoolee yu ñu xeex xanaa aji saar bi bu 21 mars 2021 laa fa mujj laa demoon. Mhm. ak bu ñuy. lever barrière Sonko bi kese. waaw mais mosuma dugg si yooyu noonu. Mhm. waaw mais daan nga sànni xeer. mosuma sànni xeer soo sànni xeer. alors fan lañ la jàppee. ba man je suis éducateur de foot je suis coach. coach amaana ba waaw coach j'ai plus de quatre-vingt quelques jeunes. en même temps je suis technicien en génie civil. Mhm. ba vous savez. jeudi li ma jàpp sama terrain lañ ma fekk maa amoon match teg samay balise pour booy bu ñu entraîné ñu fekk ma fa xama may jëli ay dossard yor vélo wàcc tali bi 6 point 9 bi xam nga gars yi ma. Mhm. waaw noonu lañ ma jàppee daal. Ah, xaw ma mënu ma leen ma jàppee. en tout cas mënu ma jàppee ñu ma jàppee bu ma jàppee wax ma dama leen laaj yéen foo leen jugee heureusement j'étais un peu dama xawoon tiit parce que dama teel ma gis auto police bi. Mhm. pour man ay nervi lañ. mais ma gis auto laaj yéen ñu ne ma police centrale ma ne ok. Mhm. après ñu yóbbu ma ne ubbi sa kóol ma coopéré. dem police centrale def fa jeudi soir vendredi samedi dimanche lundi férié parce que màggal a bi la. Mhm. mardi ñu déféré ma xamoon naa ne damay sama avocat mu ñëwee ba ma ne ko non damay dañ mhm. waaw lan nga dund ci kaso bi loo xamante ne marqué na la. bon la cohésion sociale la solidarité entre manifestants. Mhm. surtout ñu bokk si ñi nga xamante ñoo gëm idéologie Sonko bi. waaw foofu maanaam tu manges à ta lekk bi moom macha allah manifestant yi seen biir kenn xiiful kenn magul waaw te dafa créer benn cohésion sociale familiale bu dëgër parce que même bu ñuy génn sax bu may génn sax man taxaw naa mënumaa génn bëgg naa génn bëgg ma génn. lu tax. lien lien de lien fraternel yi. Mhm. dañuy jug yuuxu woy woy woy woy woy gars yi ñu kontaan bu ngay génn. ndeysaan mais tu es tu es parce que doo bëgg a génn bàyyi leen fa moo dal ñu bëri. Mhm. parce que li nga fay dundu la. xam boo dundee benn fan ak nit ñaari fan ngeen bokk lekk bokk naan bokk lépp. Mhm. kooku bu yàggee da ngay xam ay jikkoom. waaw man moom j'étais un peu chaud mais ba sant yàlla quoi. Mhm. waaw. Euh, ban chambre nga nekkoon ci biir. 46. 46. ba bu may dugg kaso dugg chambre 9 laa commencé. j'ai fait là-bas presque 11 à 12 jours. heureusement que ben y avait benn garde bu yo ma muté yóbbu ma 46 at moo yóbbee 46 ma nekk fa presque lu des yëpp mais en tout cas j'ai fait 164 jours de prison. alors li ñuy wax ci chambre neuf ndax am na ndax dañ naan moom gën a dangereux. waaw chambre neuf bu ñu dafa dangereux c'est parce que foofu xam nga y a tellement de monde façon bu ne moo fay nekk xam nga façon bu ne bi nga gis façon bu ne mënoo wax de yi xam nga bëgg na crime yi na. Mhm. ku ne lañ fiy manifestant yeeg violeur ku ne am na loolu la ak tamit feesaayi kaso gi doo xam parce que ku nekk ak jikkoom nga am ay problème mooy neuf ak dix foofu la ñuy wax mais danger wu danger bu ñuy wax mhm. parce que tamit les gardes sont tout le temps à côté gardes yi malgré tout tout le temps à côté foofu mhm. boo fa xeexee dañ lay wulli mhm. am xamante ne sax xam nga ko di wax mais en tout cas administration pénitentiaire man de mon côté je les remercie maa ngi sant di leen gërëm en même temps yàlla daf ñu dimbali directeur bu bees bi fi nekk loolu foog ma wax ko. Mhm. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla kat la. Mhm. waaw parce que am na yu bëri yu mu ñëw changé man bu may am 16 jours la ñëw bees mu ñëw ndox manqué mu indi fa ay mbànn yu bees dàmbaloo yi mu changé ko fexe ba lépp xam nga. ñu ñu manqué woon jëm nañ te daan na recevoir nit ñu bëri ku am problème mu recevoir la. ba récemment lundi passé. di mhm. yi dégg ngeen 1000 francs la woon mu def ko 500. waaw mais wax dëgg yàlla bu ñu amee directeur bu mel nii nañ ko sant gërëm ko ñu ngi koy sant di ko gërëm. parce que moo apaisé situation bi même mitineur yi moo ko apaisé waaw man sama dama koto xaw ma turam xaw ma santam bilaay walaay mais je dis bravo ñu ko ne si cette lancée Sénégal loolu lañ soxla mhm. ay liggéeykat soxla ñu ay tapalekat mhm. ak ay njuut njaaj ak yooyu noonu il est temps nag ñu xam bi changé ñëpp nekk si jàmm mhm. waaw tey tamit ma a métti uh-huh. mitinerie euh, euh, bi daanaka benn c'était une frustration par dafa ñëw ne day reporter élection yi am ñoo xam ne dañoo frustré xaw ak yëngal gësam yooyu mais heureusement tout est rentré dans l'ordre mhm. c'était un deux jours après nag mais mais ku nekk dafa doon jël ay sécurité ay sécurité am muy garde yi muy ñun ñu toog nañ presque ay cinq six jours ñu loolu la woon mais tamit baaxoon na si climat social bi parce que kaso gi mënoo fi génn mhm. quoi que quoi que tu fasses mënoo fi daw génn mënul nekk waaw frustration mun na am mais da ngeen di dal mhm. boo dalee yàlla may lu mu ngi nii ñu ngi génn ndànk-ndànk sa nañ yàlla bu liy am moo ngi am yàlla nag wëy ak jàmm waaw c'est ça. bu ma nee non tu man yàlla dafa ma dimbali yàgg dama nekk ay xale yow nekk éducateur de foot en même temps yàlla dimbali na ma benn côté côté psychologue damay xool nit xam ba ca gis naa ni foofu maanaam nit ñi bonuñu seen xëy na am na luy xew mais nit ñi bonuñu bilaay walaay doomu aadama bonul. àdduna moo yéeme rek seetaane bëri doole mais banuñu da nga gis koo xamante ne day def lu ne wàng mais après da koy rëccu ay déli ay def yu gaaw mais da koy rëccu moo tax su ma yëgoon ñu wal koo moytu te doomu adama ku nekk war ngaa mën a dal si lépp lay def dalal ànd ak dal waaw xëy tamit ba boo xoolee benn côté li ñu amoon ñun ñii ñëpp li ñu ko li ñu defoon ñëpp baal nañ ko am ñoo xam ne dañu leen dóor si yenn kaso yeeg tout ça mais ñun baal nañ ñëpp bilaay wa mhm. c'est pas j'ai pas subi de torture à part que am na loo xamante ne ben je vais pas dire torture torture morale yooyu noonu xam nga ñuy kii mais quoi qu'il en soit am na ñu jot a dóor ñu leen jàppee na ñu jot a dóor mais mhm. de retour tey sa relation ak xale yi nga xamante ne yaa nekkoon coach. ben xale yi daal ah, man na sant yàlla mbégte ma ñëw sargal ben j'étais ému. sama biir terrain ben. am na ko xamante xam ne dara mu ngi fi taxaw ci yéen seen seen collègue la mais man ça fait 30 ans maa ngi 30 ans maa ngi dëkk si benn koñ 13 ans 11 ans maa ngi si coaching waaw footballeur waaw football moom ñëpp a ma si xam parce que ci laa xamee ñëpp amaana tamit kon foog ma delloo xale yi seen liñ ma liñ ma kii activité yi je vais les reprendre de part côté yëpp waaw même sama côté liggéey je suis entrepreneur en génie civil mais mhm. contre exercer tamit ma doon def doo delluwaat si question bi parce que dégg bu baax waaw. ba gisuma ko ah banditisme boobu ngay wax gisuma ko xëy na yenn chambre yi la nekkuma fa woon maa ngi woon chambre 46 foofu jaamu yàlla fa nekk chaque lundi dañuy wàccee kaamin neuf xaw ma neuf amoon na banditisme bu amee banditisme tamit si yenn booy la par rapport à ce qu'ils ce qu'ils que am ñoo xamante ne franchement ils vivent pas avec leurs parents mhm. boo dundoo sa papa ak sa yaay nga génn dugg ñoom ñoo fi xëy fii seen kër la mhm. ñoom nekk fii moo gën a nekk si mi yenn booy yi mënu si ñaax ay tête brûlée mhm. loolu daal laa xam mais banditisme bu ñuy wax man gisuma ko waaw gisuma ko ci biir waaw te tamit fii dañay da ngay defaru fii mënoo fi yàqu boo fi yàqoo yow la neex fii boo fi duggee normalement da nga war a gën a defaru waaw am surtout boo boo impatient da ngay gën a dal waaw. léegi man mi di wax yow man tuxkat laa damay tux cigarette mais sama dama nafs laa topp kese loolu kese laa du leneen yaay defar sa bopp yaay kii sa bopp uh-huh. wala boobu ngay def lu bon da nga koy kenn lu si dimbali. man tuxkat la man bu may génn ma doon tux mooy ci biti mooy tux waaw kese mais quoi qu'il en soit administration pénitentiaire bi dañu jël ay mesures adéquates am règlement et intérieur ci biir chambre yi doogante sax boo doogantee dañ lay punir moo tax yu si amul woon ay saar ak lépp waaw am na nag ñoo xamante ne ben seen liggéey la ñuy def am ñoo xamante ne nag romb nañ seen liggéey waaw mooy côté yëpp nag ci garde tout mais li si mun am mooy en tout cas climat social bi nekk si biir kaso gi wax yàlla bu leen ko jàppee man ku dugg kaso moo xamul mais climat social bi fa nekk wax dëgg yàlla man romb na li ma foogoon dama jàppoon ni xam nga day am affaire de gangsterisme ak tout wax dëgg yàlla man mi di wax ak yow man mi di wax ak yow je man dama tàng jër am na nooy waxee sax dama lay ñaanal. Mm-hmm. ci néeg yi tëddaay bi sax dafa metti des ma ñaanal gars yi chef saa mi dama hé eh, bàyyi saaga bi man dafa doon dal. Mm-hmm. parce que da wax ma ñaanal waaw. <laughs> merci beaucoup. nga génn. waaw premier bi laa génn xam ci lan lañ la jàppee bon en fait euh, dama liggéey woon mhm. wàcc di ñibbi un gars m'a interpellé dafa civilu mhm. m'a interpellé rond-point Liberté 6 mhm. ne ma grand ça va ma ne ko ça va mu ma dama la xàmmee ma ko ah bon mu ne ma waaw ma ne ko foo ma xàmmee mu ne ma je sais je plus trop ma ne ko ah mu ma ne ko mën na am parce que vu que la vie moom ñun ñëpp dañuy xamante mu ne ma exactement noonu la fa dem mu ne ma noo tudd ma ne ko Ibader noo sant ma ne ko Sonko ne ma Sonko ma ne ko waaw mu ne ma yow manifestant nga. en Sonko nga sant. Sonko laa sant effectivement. d'accord léegi loolu la yow manifestant nga. manifestant nga mhm. jàpp sama tubéy gars yi ñëw taxañ taxañu ma mhm. yóbbu ma. def nga fi combien de temps. maa ñu ngi may ñu may jàpp en fait le 31 mai sax lañ ma jàpp. 31 mai man waaw. Mhm. le lañ ma jàpp. mandat dépôt ma le.

de maa koy siyaar bu baax a baax borom baax la. di ci top mooy euh, avec les gardes on avait relation ah, uh-huh. parce que directeur école laa woon. xam privé nu muy demee privé duñu xaar kenn. Uh-huh. donc pour le moment nii moom je sais que je vais chômer. pour le restant de l'année scolaire. mais est-ce que ñoom xam nañ xam na euh, auto école xam nañ ci kon yi waaw xam nañ xam nañ négociation clarifier les choses waaw. mais quand woo na ma daam bi woo na ma masawu ma et tout mhm. waaw. Euh, suivre. yenn yi sax mes parents dañ ci teg tànk parce que les parents ont peur en quelque sorte man j'ai pris l'initiative wax ak yéen mais je sais que sama yaay du ko neex parce que tout récemment rek bi may ñëw mu ngi may woo naan ma bul taxaw ak journaliste yi dugg na foofu génn fi mais aussi euh, man je me dis sama destin la quoi tey wax ak yéen ñàkk wax ak yéen bu yàlla dogaleen damay ñëwaat damay ñëwaat te gaw ma dinaa ñëw parce que man je me dis tey bu du loon cadre bii nii amaanaa duma fi sax donc loolu la quoi mais quant à ay poursuite et quelque chose de ce genre bon on sait pas pour l'instant daal. Mm-hmm. mais ci euh, motif bi nga xam kese nga wax Sonko est bi nga ñëwee ci jour boobu noonu. Mm-hmm. le parce que je li ma leen wax fii loolu laa leen wax mm-hmm. carrément man on m'a arrêté lii nii lañ nii nii lañ ma jàppee depuis commissariat bi ma demee ci juge bi aussi loolu laa leen wax et ce qui est bizarre dans tout ça man sama cas dafa xaaw spécial. parce que ñun biñ ñu bis biñ ñuy jàpp on était au nombre de treize commissariat Grand Yoff treize la ñu woon mais par la suite imaginez depuis le 31 mai période màggal treize yi libéré nañ douze yi ñun ñoo nekkoon fii sama gars yi bi ñu ñëwee dañ ne bàyyi nañ douze yi nga xam ñun ñoo àndal yëpp man bàyyi ñu ma immédiatement je me suis dit je sais pourquoi bàyyi ñu ma sama sant tax bàyyi ñu ma parce que maag ñun jàpp ñun lañ jàppandoo benn jour lañ ñu jàppandoo c' était le 31 mai le 31 mai ku xam-xam ne amul amuloon manifestation les manifestations ont débuté le premier et le deux mm-hmm. donc man mi ñu jàpp le 31 mai ñun 12 ñun 13 ñu bàyyi 12 yi mm-hmm. man ñu ba fi je me suis demandé la moo tax ñu ba fi immédiatement dama xam ni sama sant bi sonko bi ma sant moo ma fi moo ma fi téye bi tamit nga wax leen loolu amuñu du crime du dara def naa réaction parce que sama avocat kii yoon déclenché woon na procédure bi il tout fait mais comme comme ñëpp xam nañ quoi mbirum politique moom. Mhm. wax dëgg yàlla gars yi dañ ci teg seen tànk mënuñ ci dara waa ji mooy buum mooy buumi mhm. man fa laa ko jàppee quoi. moo tax def nañ luñ mën sama kii dugal naa LP ñu rejeté ñu dem chambre d'accusation même chose. et depuis lors mu ngi sama avocat macha allah wax dëgg yàlla tout le temps je l'appelle dafay dem il fait tout son possible mais rien wax dëgg yàlla. au fait euh, ñun suñu néeg au départ amoon na mais quelques-uns quelques-uns d'habitude chambre yi gën a am loolu mooy les chambres 9 10 3 4 14 chambre yooyu ay chambres yi mag lañ donc euh, ñooñu ñooy faral di gën a am euh, genre problème yooyu genre feebar yooyu mais quant à les petites comme man chambre bi ma nekkoon 24 taroon na départ bi mais par la suite yàlla nag quoi ñun feebar boobu man personnellement dugg naa ba génn aw ma ko woon wax dëgg yàlla bon ñaari chose ma fi indi d' abord sama papier yi ma fi baay parce que sama carte d'identité ngi fi bi may génn dañ ma ne woon ma ñëw lundi en plus de cela j'étais venu pour m'enquérir des nouvelles de des autres camarades quoi am na ñu ci des am na ñu ci des parce que maa ngi laajte léegi nii chef yi ma dis que am na ñu ci des supposons ko dinañ leen bàyyi tey loolu la ñëpp di ñaan ko parce que parents yi sonn nañ donc euh, di lancer appel rek gars yi nañ bàyyi booy parce que ils n'ont rien à faire ku ci ne bu la waxee ko jàppee yow mi sa bopp da ngay fàttali liñ la jàppee yow c'est ça quoi. c'est bon merci beaucoup. ok merci euh, de Rebeuss pour ñoo nekkoon ci manifestation yi ginnaaw boobu nag lañ fi taxawal ki nga xam ne euh, nee naa la sax duma wax sax détenu mais plutôt seexam moo nekk ci biir muy zaal mais ki nga xam daal ñu expliquer tamit condition yi nga xam ni moo ko fi indi ak ban moment la fi def ak instant. Ah, waaw. ñu ngi lay bu baax a baax. Mm-hmm. tey ñu daal lay ñëw fekk fii euh, fi nga xam ne mooy di maison de euh, Rebeuss ngay xaar ki nga xam ne mooy sa seex euh, ngeen ngeen bokk lépp ah, parce que seex la ñu wax biñ koy arrêté ci yenn condition lañ ko arrêté. bon moom biñ koy arrêté période 16 mars la procès Mame yi Niang Sonko côté tribunal bi je pense parce que man fekkewu ma ko woon waaw depuis boobu ba léegi yaakaar naa war a mën léegi mu def un daal mhm. benn mois de mars bii nii lay def un waaw dépuis boobu ba léegi. Mhm. Mhm. biñ koy arrêté dafa demoon pour manifester wu wala dafa dafa am lu mu doon euh, lu mu doon doxi bon moom ci ci li mu wax bi muy génnee lim tàggoo ak li am yow mënoo comprendre mais biñ demee ba si biir comprendre nañ ne ah, bon manifeste da doon manifester comme ay moroomam. waaw parce que ba nii nii nii nii nii ñun man mi di nga xam ne man maay seexam tamit li am ci réew mi te mu metti ko ba mu jaral ko génn di manifester man mii tamit mii mu fekk ci biti duma ma ci xalaat dara bu amaatoon dama koy répété waat man tamit la même chose génn manifester comme comme ni mu méttee Sénégalais parce que ay Sénégalais lañ ñëpp waaw li nga xam ne moo métti ñëpp mu ñu woon métti parce que mun ñoo ne li nekk ci dëkk bi euh, ñëpp gis nañ ko ñëpp teg nañ ci seen bët ku toog ne méttiwu la rek wala sa yoon newu ci naafeq nga te ñun ñaan ñu yàlla nekk naafeq waaw lépp lu ñuy jóg suñu morom di ko xeex wala askan bi di ko xeex dañ koy ànd ak ñoom ci dëgg ndax dëgg mooy njëkk mooy mujj waaw condition yooyu moo ko fi dugal te ñu ngi ñaan yàlla mu génnee ko mu génne ko fi si jàmm waaw te génn fi tamit yaakaaru moom mu tee mu bàyyi li nga xam ne fa la tegoon tànkam ndax moom xam naa ko sama seex la te xam naa ko bu baax a baax waaw ku gëm boppam la ku am ay ambition ci boppam la nekkul ñàkk ambition moo tax muy génn di traîner ci yu mel noonu déedéet waaw gëm boppam ak tamit xam ne avenir am ci dëkkam la la nekk moo tax muy xeexal dëkkam parce que génnoon na fi avant loolu demoon na fi Maroc daanaka période bi mu ñibbisee sax la ko lii arrivé ndax génn na xam na li nekk ci ci ci ci ci euh, ailleurs quoi xam na li nekk ailleurs ak li nekk ci dëkkam waaw xam na ne affaire yi doxewul ni mu war a doxee ba tax moom foofu mu doon dund sax loolu dafa doon feeñ quoi. Maroc gi mu nekkoon di fa dund da doon feeñ étranger yi fa nekk di fa dund rawatina si sénégalais yi ñàkk a jox gëdd gi leen ñàkk jox gëdd foofu noonu moo tax ñu amoon fa ay problème ba nii nii ba mu ñibbisi sax bana fa ay moroom ba yoo xam ne ñu ngi am ñu ngi dund problème yooyu noonu mu ñibbisi waat ci dëkkam gis ne dëkkam ñoo leen teg problème yooyu ba fii ñuy nekk di di fi dund sax ñoo leen ñoo leen i teg problème yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy am parce que mënoo nekk ndaw nekk si dëkk di liggéey ni mu waree sàccoo fenoo duggoo sa yoon nekkul jour yaa ngi xëy di liggéey te maam mënoo dajale sax loo dimbalee say waajur bay dimbali sa bopp. loolu dafa metti te suñu gouvernement yi mooñ ko teg ñun xam nañ ko bu baax a baax ndax instant bi dañoo yeewoo. waaw xam ne mooy sa ni que mars ci yenn condition bi ko arrêté ba pare maanaam nan lañ ko jaaralee nan nga def ba jot ci. waaw bon man jour bi ñu koy arrêté. jour boobu noonu toog naa ay ay midi mu wooma ma ne ko foo nekk nii mu ne ma ñu ngi nii jugee euh, côté tribunal di jëm di jëm euh, cité kër góor gi quoi ma ne ko waa baax na ñëwal nga ñibbisi si quoi mu ne ma waa baax na maa ngi ñibbi si mais après bi par la suite laa toog ba ba yàgg dégguma ko bi affaire yi gën a yëngatu côté ngoon gi noonu ma koy woo téléphone am jotuma ko may insister di insister jotuma ko bi ma toogee ba ay vingt heures vingt ci la ma woo ci beneen numéro ne ma booy mujj nañ ma arrêté quoi ma ne ko looy wax nii mu ne waaw mais nag bu ko wax waa gaale mu ne ko non si faamu ma wax leen ko parce que boobu ba léegi ñu inquiété wu ci yow xamuñu ci loo nekk faamu ma wax leen ko comme li am am na ba pare suñu borom moom bu mu teg sa kaw force mu dal sa kaw munoo cee mucc boo toogoon fii sax mën na la fekkee fii jàppee la fi wala bo mooy loolu noonu leneen dal la cër te gunóo leen suñu borom moom lu mu dogal ci yow loolu mooy am bon comme xës na am ba pare moom yàlla baax na quoi dina jeex incha allah rabbi lépp ba léegi ñu nekk ci yéegal wàcc après ñu indi leen tribunal xama retour de parquet ba ni ñu leen di defeeree waaw ba ni ñu leen di parce que ñu ngi leen defeere bu ñu nee daaw bu ñu nee suba non si jour premier jour koor gi ci lañ leen defeere fii nii 100 euh, mètres quoi mm-hmm. waaw depuis boobu ba léegi nag ñu ngi ci yéegal wàcc ba fi mu toll ni ñu ñaan yàlla nag. mu bokk ci ñi nga xam ne moom la ñuy libéré. Mm-hmm. incha allah ci ci ci wàllu défertage bi ñu koy déféré. Mm-hmm. pour mu ñëw euh, mm-hmm. est ce que bi ñu ko gisee wala moment bi ñu ko gisee. gis nga ci moom benn changement parce que ñu bëri ñu ngi atténuer naan. Euh, am na ay torture yu ñu leen doon def ñenn ñi ñu ngi leen doon dóor ñenn ñi tamit ñu leen defal ay mandarga est ce que bokk na ci ñoom bon man nag moom doon na jàmbaar goo xam ne wax dëgg yàlla maam mënee si biir loo xam ne sax yow mën nga koo bañ xam ba ni ñu man ni ñu nekkee budul ci manifestation yi nii sax li mu dund Maroc maam yow bu la ko expliqué wul mënoo koo xam doon na gaynde gaynde goo xam ne ba fii nii boo ñëwee visite sax euh, moroom détenu yi nga xam ne moom ngay moom ngay gis xam nga dañ ne maam kii jàmbaar la dañ la koy wax ñoom si biir euh, si si si biir foofu noonu di la ko expliqué naan la kii gaynde la jàmbaar la mhm. parce que moom mën na dund lu metti sax mais mënoo ko gis si moom ko parce que chaque jour mu ngi def loo xam ne rek yow mi nga xam ne yaay mbokkam tey nga bañ a toog sa xel di jaxasoo ci moom yooyu noonu mhm. mais nag li mu dund dëgg dëgg dëgg xëy na bu génnee dinañ ci am lu ñu leer. Mm-hmm. waaw mais nag ankay parce que damay ñëw visite chaque chaque chaque chaque jour te chaque vendredi damay ñëw visite mm-hmm. li mu lay expliqué mooy fii neexul mais nag jàmbaar moo koy dékku ñu ngi koy dékk comme ni ko suñu moroom yi di dékku mm-hmm. waaw coono yi fi nit ñi di wax moo fi nekk mais nag ñun dund leen lu gën a tar lii nii waaw métti na ba fu métti yam mais yàlla bu ko waree jeexal da koy jeexal loolu la lay wax à chaque fois waaw du nangoo développé bu baax parce que day bañ yow ngay jaxasoo wala ngay dem kër ga di expliquer mhm. parents yi di gën a jaxasoo ak yooyu noonu mais man gëm naa ne mhm. li metti yi nit ñi di fi wax moom lañ fiy dund parce que mhm. kaso moom ku ne neex na moom da ngay wax lu la neex rek waaw mais nag jàmbaar dëgg moo koy dékku waaw parce que natt boo xam ne maam yonent yi yonent yàlla euh, Yusufa jaar na si Cheikh Ahmadou Bamba mi nga xam ne ñun moom la ñu doyloo mu doon suñu wasi la jaar na si kon yaakaar naa ne ku gëm yàlla bokk na ci say nattu. Mm-hmm. te bokk na ci lim lay defaral. waaw am na ñoo xam ne it bokk na ci lum leen di yàqal mais yàlla nañ ci yàlla musal. Mm-hmm. waaw. ñuy wax seex bu ñu waxee seex wax moitié maanaam sa genn wàll la mm-hmm. depuis boobu amee ba léegi ana lan nga xam ne yaa ngi koy sentir sa yaram mu métti la torop torop ndax boo xoolee distance bi ngay jógee métti na. ci jóge 100 mètres yaa ngi jógee ba Kër Massar Kër Mbaye Fall dafa xaw a sori. si si li ñuy dund moom bu ñu nee la wax rek. nit moom boo gëmee ndogal maanaam di dina am loo xam ne maam di nga ko dékku ndax suñ borom moom mooy xool ku ko neex mu teg ko ndogal ndax depuis boobu ba léegi maam melu ma ni ma meloon carrément mais maa ngi jéngu ko maa ngi koy jaayante parce que nangu naa ne ndogal la waaw ndax des fois damay toog sax nekk ci leneen absenté maa ngi ci leneen quoi nit ñi dañ may laaj mais doo mën a expliquer lépp mhm. te yaakaar naa ne am na ñoo xam ne sax jàpp nañ leen nit ñi xamuñu leen dañuy dañuy ñuy lu loolu noonu di ko di ko di ko dund rawatina koo xam ne yéen waxuma la maa rax mais yéen a bokk benn biir bu ngeen génnee ci même instant doon ay seex loolu lu ko gën a métti amul su ma nee la méttiwul damay wax lu ma neex be koy dund rek doyloo ko yàlla te xam ne tey bu si ñàkkoon ba kanam tamit lay gën a métti bu si ñàkkoon ba kanam tey fi mu toll nii leneen la ñuy wax mm-hmm. boo ñëwee di ma posé question da naan ki fi jugee dem si yàlla si yàlla nañ xam te ñi fi jugee tamit gënu leen ñooñu yàlla na sam borom yërëm te xaaral leen ci àjjana yu gën a kawee te am naa njort ne sax àjjana la ñu jëm waaw dañuy njortu ne ndax ay jaamu yàlla lañ parce que ci li ñu jugee nii mën naa ne jihaat la ndax nit ki bu buñ lay noot da nga ko war a mën a jaayante ci kaw boo ko mënee moo moo xam nga metti ko soxol xol wala moo xam nga nga nga jëf ko nit ñi gis wala moo xam nga wax ko waaw ana ban jàngat nga am ci justice sénégalais bi ni ñu doxee instant loolu moom jàngat bi daanaka daa soriwut loolu maam liir yu dooru juddu sax xam nañ ko barki dem moo njaay maa ngi seetaan TikTok fekk euh, euh, gis benn xale boo xam ne su am 3 ans wara 4 ans ci lay yem mi ngi wax ne justice bu Sénégal ni muy doxee baaxul loolu bu ko xale bu am 3 ans di wax wala 4 ans yaakaaru mu ne ñun mag ñi nii moom war nañ mën a ñàkk bañ a am yaakaar que ne Euh, ñii ni ñuy doxee baax na wala baaxul loolu moom saful wax mm-hmm. justice ku nekk xam ne ne dañ leen a tënk mm-hmm. dañ leen a tënk moo tax ci ki leen tënk lu mu ko neexee rek ñoom noonu la ñuy doxee mm-hmm. mais incha allah rabi dina fi jóge bu soobee yàlla yàggul dara waaw ndax ñun gëm nañ ko te tamit focus rek incha allah yi focus rek. ba ba yaa ngi wax ni ka ni bi jeexul même su amaatoon da ngeen di wàccaat defaat loolu. wallaahi azim. billaahi wallaahi wataalaahi man chaque jour que jëfee nit ñi dañ may woo yow toogal bul dem parce que sa seex mi ngi ci kaso bi mbaaw rek laa leen di wax parce que man doon naa nit koo xam ne li mooy xeex man la quoi man la intéressé su may génn di dem nit mën na koo bañ a yëg xam nga ba ci jour bi nga xam ne moom la ñu rey laasana booy cag-cag bi dëkk Kër Mbaye Fall sama xarit la woon sama atelier la daan nekk chaque jour ci biñ ko dencee noonu boo pare bi gars yi wàccee di manifester maa ngi woon ci naqar rey nañ sama xarit sama seex mi ngi ci kaso bi ñu tëj presque un an mënu ma fexe ba gis ko. Mhm. man mën naa ne sax loolu moom ma gën a poussé pour ma wàcc ci terrain pour xeex mais bi may dem kenn yëgu ma mhm. sama gaale bi may wàcc ci terrain bi di dem kenn yëgu ma parce que intéressé intéressé wul kenn te xam naa ne bu ñu ma yëgoon du ma wàcc dem ndax foofu tolloon naa ci mer xam ne yaakaar naa ne wàcc ci terrain bi faj sama naqar parce que nit ñi bu ñu leen di juger quoi nit ku nekk fi mu toll ba tax muy def li muy def yow da ngay ñaan suñu borom mu bañ laa tollulee foofu ndax affaire yi ay tolluwaay la. man jamono ñii laay dóor a gëm ne kuy xaru kooku lim lim li ko tax di xaru wallahi bu toogoon expliqué la ko yow wala yow nga dund ko di nga xam ne kii li ko tax a xaru da nga ñaan suñ borom mu musal la ci loolu nit ku nekk fépp fu muy toll ba tax muy def li muy def ñaanal yàlla rek mu bañ laa tolloo tolluloo ci ci ci état boobu noonu mais bis boo fa tolloo di nga xam ne kii lii moo tax mu def lii boo yi nga xam ne ñooy génn di manifester li leen ñuy génn di manifester muñ la rek muñ bool bool bi saa bu feesee day tuuru ñun ñu yàlla mayoon nag ba tax génnuñu terrain bi ci jamono yooyu noonu di xeex xëy na suñu muñukaay moo desoon rek mais ñoom li tax ñu génn di xeex seen muñukaay dafa fees parce que li leen metti ñun moo ñu metti ñu ngi ko doon manifester suñu xol mais mënuñu woon wàcc ci terrain bi mais biñ demee la suite lañ xam ne maam ñii li leen metti ba taxaw ñu wàcc ci terrain bi ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon yëg ñun ñu ngi ko doon yëg wàcc ci terrain bi moo tax man la bu doonoon bu doonoon bu doonaatoon tey barki Serigne Bamba mbakki dañuy wàccaat ci terrain bi wallaahi azim parce que dëgg moo moo mu ju doole mën naa ne ci li nit ñi foog mooy moo mën dëgg ndax suñ borom mooy doxalee noonu ay mbiram ndax luy neex du du du du njëkkee neex ko faaw mu naqari parce que ñi nga xam yonent bi sallallahu te yàlla yónni su ñun ñi xam ne ci moom lañ jokk gis nañ wala dégg nañ nattu yi nga xam ne dal na ko ci bi mu bëggee taxawal lislaam ba ci ñi nga xam ne ñun mooy suñu balance ci ñoom muy Serigne Touba et cetera maam El ñeneen ak ñeneen li ñu dund ñoom ci metit mu jaral leen maanaam jaayante ko ak seen borom ak yonent bi sallallahu alayhi ku nekk ñun fekkee wuñ ko waaye dëgg la ndax jàng nañ ko te dégg nañ ko waaw kon nit mu ne da ngaa bëgg lu neex. ba pare te mënul metti ci yow loolu si impossible. loolu mënul nekk tey mënoo ne da nga bëgg sa réew changer nga toog croiser croiser say bras ne sama yoon nekku ci bu ëllëg bu changer donte ne yow neex na mais yow day boo toogee ak sa conscience tranquille xam ne man ñi jaayante lii nii ba yegg si fii man moom aw ma aw boobu noonu man naa génnee sama bopp ci loolu bu dee nit nga yow bu nit ñi di toog di wax da ngay noppi. sa matin ñu leen woo pour li nga xam ne moo di libération bi mu ngeen nekk di xaar am nga yaakaar wala woote nañ wala def nañ dara pour wane la tey ñii libéré sa seex dina ci bokk. waaw parce ñun mooy li ma wax rek ñun yoruñ liste dañuy ñëw di di di di xaarandiku rek. di di dekku ci yàlla. xëy na nag am na ñoo xam ne ñoom xam nañ liste ñi war a génn tey mais ñu ngi xool def ay recherche ku ci mën a gis laaj la. Mhm. mais peut mën nañ am surprise tey. bu boobaa sax dinañ neex trop yàlla na ko yàlla def tey munu la wax ne tey bu ma ko gisoon nii mu génn waaw munu la wax ne man nii laay def munu la ko wax parce que mu naa ko. barki Serigne Touba Mbacke namu naa ko trop ndax sam moom du sama seex kase sama waay la sama réel joola moom lu ne la ñuy partagé man mooy sama xarit. metti na Assane ñu ngi lay masaw baax waay di ñaan tamit euh, libération tey yàlla na ci bokk. Mhm. allahumma amiin amiin amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi. Mhm. amiin yaa rabbi yàlla na ci bokk waaw bon yéen tamit di leen jaajëfal parce que waaw di rafetlu seen liggéey tamit. Mhm. ndax lii nii bokk na ci li nga xam ne ñun moo ñuy encourager waaw ndax da ngeen ñuy fekk ñuy nekk ci loo xam ne beneen dimension la mais li ngeen ñuy def nii du ñu may fi di ñu yokk fi di dëfal tamit yàlla na saa boroom yokk seen liggéey. waaw fi fi fi yeneen journalistes yu mag yi nekk. ngeen nekk foofu au niveau international. te suñ borom mën na ko te dina ko def soobee yàlla ndax ay ndaw ngeen te gëm ngeen seen bopp. li ngeen di def nii mënoon na leen cee bañ a fekk. ndax tamit lii ku ne xam na ne yombut. mënoon na leen cee bañ a fekk ndax seen i morom moo fi nekk di def na su dul noonu. te suñ borom xañu leen fit boobu noonu mais may na leen ngor ak jom goo xam ne mën na nit mën na leen bañ a fekk ci loolu noonu. kon li ngeen nekk nii yàlla suñu borom ful ko mu doon maison de production boo xam ne dina gën a weesu fii nii. incha allah rabbi jaajëf jaajëf la jaajëfal bu baax donc. ay ci sëñ bi ñu lay nuyu ñu bàyyi la nga nuyoog ñi lay seetaan tur bi la. waaw asalaamaaleykum Grand F. GPS Grand F laa bokk. d'accord Mohamed ñu bëggoon xam euh, kañ nga génn fi nga xamante rek mooy 100 mètres ci détenu yi nga xam ne dañ leen jàppoon. génn vendredi ay 18h50. nga génn waaw yooyu. Ben, j'ai fait 164 jours de prison. daanaka 5 mois 11 jours. 5 mois 11 jours waaw ah, 31 août lañ ma jàppoon. 31 août waaw. lan nga defoon bañ man moom daanaka du ma activiste sax mais si suis sonkiste pur et dur bokk Pastef. bu mhm. Grand Yoff mais je m'affichais pas trop même. parce que dañuy du ma militant du ma sympathisant romb naa yooyu je suis sonkiste pur et dur. Mhm. mais ay tuuma rek. ñu ma tegal ben jàpp ma mais sant yàlla buñ duggee kaso. ay tuuma ay attentat terroriste ay acte est majeur à compromettre l'action mooy loolu daal sécurité publique et tout ça. da nga daan dem ci manifestation yi. ben manifestation yi pacifiquement pacifique dama doon dem. Mhm. manifestation yi boo xoolee yu ñu xeex xanaa aji saar bi bu 21 mars 2021 laa fa mujj laa demoon. Mhm. ak bu ñuy lever barrière yu Sonko bi kese. waaw mais mosuma dugg si yooyu noonu. Mhm. waaw daan nga sànni xeer. mosuma sànni xeer fan lañ la jàppee. ben man je suis éducateur de foot je suis coach. coach amaana ben waaw coach j'ai plus de quatre-vingts quelques jeunes en même temps je technicien en génie civil. Mhm. ben vous savez jeudi ma jàpp sama terrain lañ ma fekk ma moon match teg samay balise pour booy bu ñu entraîné ñu fekk ma fa xam nga mhm. may jëli ay dossard yol vélo wàcc tali bi 6 point 9 bi xam nga gars yi intercepté ma. Mhm. waaw noonu lañ ma jàppee daal. Ah, après xaw ma mënu ma ne nu ma jàppee en tout cas mënu ma jàppee nu ma jàppee mu ma jàppee waxuma dama leen parce que dama teel ma gis autopolice bi pour man ay ma gis autopolice laaj leen ñu ne ma police centrale ma leen ok mhm. après ñu yóbbu ma ne ubbi sa kóol ma coopéré mhm. dem police centrale ben que màggal Tuubaa la mhm. mardi ñu déféré ma xamoon naan damay sama mu ñëwee boo wax ne ko non dañ may déféré alors lan nga dund ci kaso bi loo xamante ne marqué na la. ben la cohésion sociale la solidarité entre euh, manifestant mhm. surtout ñu bokk si ñi nga xamante dañoo gëm idéologie Sonko bi. Mhm. waaw foofu maanaam tu manger à gis lekk bi moom macha allah manifestants yi seen biir kenn xiiful kenn magul. Mhm. waaw te dafa créer benn cohésion sociale familiale bu dëgg parce que même bu ñuy génn sax bu may génn sax man. taxaw naa mënumaa génn bëgg naa génn bëgg ma génn. lu tax. lien lien de lien fraternel yi. Mhm. dañuy jug yuuxu woy woy woy woy woy gars yi ñu kontaan bu ngay génn. ndeysaan mais tu es tu es ému xam nga. Mhm. parce que doo génn bàyyi leen fa doo bëgg génn bëri. parce que li nga fay dund la. xam boo dundee benn fan ak nit ñaari fan ngeen bo lekk bokk naan bokk lépp. Mhm. kooku bu yàggee da ngay xam ay jikkoom. waaw man moom j'étais un peu chaud mais ba sant yàlla quoi. waaw. 46. 46. chambre 46. ben bu may dugg kaso dugg chambre 9 laa commencé j'ai fait là-bas presque 11 à 12 jours heureusement ben y avait benn garde bu moom mité yóbbu ma. mais en tout cas j'ai fait 164 jours de prison. alors li ñuy wax ci chambre am na ndax dañ naan moom moo gën a dangereux. waaw chambre 9 bu ñu dafa dangereux c'est parce foofu y a tellement de monde. di nga gis façon mënoo wax déli yi xam bëgg na crime yi bëgg na mhm. ku ne lañ fi indi mhm. reykatu nit yeeg côté garde yi malgré tout tout le temps à côté foofu mhm. boo fa xeexee dañ lay wulli am ñoo xamante ne sax xam nga mënoo ko di wax mais en tout cas administration pénitentiaire man de mon côté je les remercie maa ngi sant di leen gërëm en même temps yàlla daf ñu dimbali. Mhm. directeur u bees bi fi nekk loolu foog ma wax ko. Mhm. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla kat la. Mhm. waaw parce que am na yu bëri yu mu ñëw changé man ba may am 16 jour la ñëw bees mu ñëw ndox manqué mu indi fa ay mbànn yu bees dàmbaloo yi mu changé ko fexe ba lépp xam nga ñu ñu manqué woon jëm nañ te daan na recevoir ñun ñu bëri ku am problème mu recevoir la. ba récemment lundi passé. ticket yi dégg ngeen 1000 francs la woon mu def ko 500. waaw bu ñu amee directeur bu mel nii nañ ko sant gërëm ko ñu ngi koy sant di ko gërëm parce que moo apaisé situation bi même mutinerie keroog moo ko apaisé waaw man sama dama côté xaw ma turam xaw ma santam bilaay walaay mais je dis bravo ñu ko ne sur cette lancée Sénégal loolu lañ soxla ay liggéeykat soxla ñu ay tappalekat ak ay njuuj njaaj ak yooyu noonu il est temps nag ñu xam nga dëkk bi changé ñëpp nekk si jàmm waaw tey tamit dégg na lu ma gën a métti uh-huh. mutinerie bi daanaka benn c'était une frustration par rapport à ce que Macky avait dit Macky dafa ñëw ne day reporter élection yi am ñoo xam ne dañoo frustré xaw a yëngal gësam yooyu mais heureusement tout est rentré dans l'ordre c'était un deux jours après nag mais ku nekk dafa doon jël ay sécurité muy garde yi muy ñun ñun toog nañ presque ay cinq six jours génnuñu loolu la woon mais tamit baaxoon na si climat social bi parce que kaso gi mënoo fi génn quoi que nekk waaw frustration mën na am mais da ngeen di dal boo dalee yàlla may lu mu ngi nii ñu ngi génn ndànk-ndànk sant nañ yàlla ba lii am moo ngi am yàlla na wëy jàmm waaw. ayca bu ma ne non tu man yàlla dafa ma dimbali yàgg dama nekk ay xale yow nekk éducateur de foot en même temps yàlla dimbali na ma benn côté côté psychologue damay xool nit xam ba ba ca gis naa ni foofu maanaam nit ñi bonuñu seen xëy na am na luy xew mais nit ñi bonuñu bilaay walaay doomu aadama bonuñu àdduna moo yéeme rek seytaane bëri doole mais bonuñu da ngay gis koo xamante ne day def lu ne wàng mais après da koy rëccu ay ay def yu gaaw mais da moo tax su ma yëgoon ñu war koo moytu te doomu aadama ku nekk war ngaa mën dal si lépp lay def dalal ànd dal waaw xëy na tamit ba boo xoolee benn côté li ñu amoon ñun ñii ñëpp li ñu ko nañ ñëpp bilaay wallaay mhm. c'est pas j'ai pas subi de torture à part am na ñoo xamante ne ben je vais pas dire torture torture morale yooyu noonu xam nga duñ duñuy kii mais quoi qu'il en soit am na ñu jot a dóor bu ñu leen jàppee si manifestation yi ñu fekk si manifestation am na ñu jot a dóor mais ñoom ñëpp baal nañ ñëpp mhm. bilaay walaay. alors de retour tey sa relation ak xale yi nga xamante ne yaa nekkoon seen coach. ben xale yi daal ah, man la sant yàlla mbégte démb rek dañ ma ñëw sargal ben j'étais ému. damaa mujj jooy terrain lañ fekk ñu xale yi lépp sama bulletin rek ben am na koo xam na si dara mu ngi fi taxaw ci yéen seen seen collègue la mais mhm. man ça fait 30 ans maa ngi 30 ans maa ngi dëkk si koñ 13 ans 11 si coaching mhm. waaw footballeur waaw football moom ñëpp ma si xam parce que ci laa xamee ñëpp amaana tamit kon foog ma delloo xale yi seen liñ ma liñ ma kii activité yi je vais les reprendre de part côté yëpp waaw même sama côté liggéey je suis entrepreneur en génie civil mais mhm. compte exercer tamit du ma doon def doo delluwaat si question bi parce que dégguma bu baax waaw. ba gisuma ko ah banditisme boobu ngay wax ko xëy na yenn chambre yi la nekkuma fa woon maa ngi woon chambre 46 foofu jaamu yàlla fa nekk chaque lundi dañuy wàccee Kamin neuf xaw ma neuf amoon na banditisme bu amee banditisme tamit si yenn booy la par rapport à ce qu'ils ce vécu. parce que am ñoo xamante ne franchement ils vivent pas avec leurs parents. Mhm. boo dundoo sa papa ak sa yaay nga génn dugg ñoom ñoo fi xëy na fii seen kër la. Mhm. ñoom nekk fi moo gën a nekk si mbedd mi. yenn booy yi mënu si ñaax ay tête brûlée. Mhm. loolu daal laa xam mais banditisme bu ñuy wax man gisuma ko. waaw gisuma ko ci biir waaw te tamit fii dañay da ngay defaru fii mënoo fi yàqu. boo fi yàqoo yow la neex fii boo fi duggee normalement da nga war a gën a am surtout boo boo impatient da ngay gën a dal waaw léegi man mi di wax yow man tuxkat laa damay tux cigarette mais sama dama nafs laa topp kese loolu kese laa du leneen yaay defal sa bopp yaay kii sa bopp voilà boobu ngay def lu bon da nga koy def ah. kenn du si dimbali man tuxkat laa man bu may gis dama doon tux mooy ci biir damay tux waaw kese mais quoi qu'il en soit administration pénitentiaire bi dañoo jël ay mesures adéquates am règlement et intérieur si biir chambre yi moo tax yu si bëri amul woon ay saaga ak lépp waaw am na nag ñoo xamante ne ba seen liggéey la ñuy def am ñoo xamante ne nag romb nañ seen liggéey waaw mooy côté yëpp nag ci garde ak tout mais li si mënti am mooy en tout cas climat social bu nekk si biir kaso gi wax dëgg yàlla bu leen ko jàppee man ku moo xamul mais climat social bi fa nekk wax dëgg yàlla man romb na li ma foogoon dama jàppoon ni day am affaire de gangstérisme ak tout ça mais yooyu yëpp fekk ñu si waaw wax dëgg yàlla man mi di wax ak yow man mi di wax ak yow je suis man dama tàng jër am nooy waxee sax dama lay ñaanal mm-hmm. ci néegi tëddaay bi sax dafa metti des fois ma ñaanal gars yi chef sam dama eh bàyyi saaga bi man dafa ma doon mm-hmm. parce que da ngay wax ma ñaanal waaw fekk ñëw ma ci manifestation sama place lan ma fekk may liggéey ñu jàpp ma Mars Asalem ku nekk xam na ko ku ma gis da nga ma xàmmee man ma ma jël ma yóbbu mbuus pour ñu xam man na Mbaye Diaw benn booy leen jox benn mbuus mu ñëw booy bi ne ma yaay Mbaye Diaw ko waaw ñu yëkkati mbuus gi jox ma fekk na bàyyi fa nga xam ne nii ban la jàppee def nañ loolu. non franchement. waaw ah, ba léegi defuñu ma dara. sax. bar proposé waat jamono amul benn ndox doo gis ndox ndox du xelli waaw pour nga sangu problème da nga toog ñetti fan yoo xam ne doo sangu doo tëdd tëdd bu baax man bi may doog dugg si sàmbur bi toog naa deux mois yoo xam ne nelawuma waxuma paquetage bi ñëwaguma ci de deux mois dama koy toog du xoole nii du ma nelaw boo xëyee suba tamit doo nelaw fi nga toog ngay toog di nelaw wala fi nga taxaw ngay taxaw di nelaw waaw def naa fa onze mois yoo xam te dañ lay paqueté chaque jour chambre bi day sàmm benn wanag la am ñaari wanag benn ñaari wanag te benn bi dong lañ am droit sango si bi si des kenn amul droit sango si xam nga loolu jaaduwul sax heure bu la neex ñun la kaay nga jël sa bagage nga dem loolu moo dëgg parce que li may nekkee kaso bi lan nga nekkee si kaso bi mooy dong dong man pare naa loolu bëgg naa ko soxla naa ko naa ko nee naa ko Pastef laa bokk problème man nit dong daara la def naa si daara fukki at ak ñett ay Sambour neuf ak Macky Sall ay Sambour yooyu jaaxul ma Wade même condition la rek waaye yàgguma fa woon quoi bee dix jours doon fa dem ak Amadou Ba Pastef lañ jàpp ne woon mooy suñ liste suñ liste député yi mooy bu ñu ko téye quatre-vingts personnes yéen jàppoon dinañ atte ba man ci laa bokkoon quoi après ñu libéré ñu si manifestation yooyu que sees ba la fekk ñu toog ñu jàpp ñu amul benn boo xam ne dañ ma fekk ñu manifester ñu jàpp ma dañ lay fekk nga nekk ci li nga war a nekk ñu jàpp la jël la yóbbu la te loolu teguwul benn dañ dafa war a dal ci Sénégal parce que ñun dunoo amee mbokk amuñ njaboot du nit ñoo xam ne ñun du ay responsable lan dañuy liggéeyloo ay nit di leen fay yor place di xëy suba di liggéey di doxal ni dox ci réew mi ba pare yor njaboot yor soxna yor sa yaay yor sa pap yor ca lépp parce que man Pikine laa dëkkoon te fi maa ngi dëkk fi ndooni Dakar gii soriwu ma te Pikine laa dëkkoon condition yee sama soxna doon dund foofu moo tax mu mujj ñëw tuxu si fii si mbokkam des dend ak mbokkam loolu Macky Sall moo ñu ko teg te kenn deful dara defuñu dara bu doon dunoo def dara sax saaga wala man bu ma saaga woon sax wala ma def leneen lu ma war a def bu leen neexee ñoom ñu ñëw jël si ma waaye defuma lenn loo xam ne war naa ko def. tey nga xam ne ñoom ñooy génn wala soit da nga ñëw non non dama fay ñëwaat pour soutenir sama téléphone moom récupère ko sama par téléphone mu ngi si procureur mu téye ba tey jotaguma ci waaw mu ngi si procureur mu téye ba tey jotaguma ci soxlawuma ko bu ko neexee na ko téye foofu waaye li ma fi indi li fi indi mooy dafa am sama benn xarit bu nekk ci biir dootuñu yëpp ñoo ma tax a jóg sax man nelaw projet bi na lay dara dara amul ci loolu la ñuy dox an li ma fa dund ma alquran mu kan laa koy jàng Sénégal loolu laa fa yàlla ma gis ni mooy dàqal ko élection yooyu la yaakaar doon pour gën mu nekk si jàmm laaj rek suñu dox ñu jàpp moo moo war a yi xat nga gis noo xam ne seen am xawi tax waaye sunu fan yee bu ñu génn ndooñ ñooy dem boole le si suuf sa waaye dama ko bëgg a def day nekk si néeg bi di di di kii quoi boo nekkee bañkat quoi am nga néeg yi tamit dañ lay dugal 1000 francs lañ ciy dagg loolu fan la tegu te chef chambre liggéey am na lu ñu liggéey si biir waaye dañuy liggéey si biir Youssou Diop xakkeen parce que nee naa man